dañ koy faral di wax jàng ak way du benn jàng da nga da nga yëkkati daaj neexal waaye day am pësteef di dugg ci xol di yëkkati xaal di dolli pësteef way nag diri la ak neexantal nga xam ne ki koy dégg fecc fecc lay def ak sigare dégg nga waaye eh, ak sarxole ak yuuxu waaye la muy wax ci bakkan ba lay am neexi do ca bakkan lay dellu waaye du delluwaat ci du dellu ci ab xol kon du lu ñuy fayee bokkut ak li ñuy pap di wayé ci fawkay yi xasida du lolu kon lolu tam ñu sellal ko bokku na ci li tax ñu jari cee euh bu ko defé itam ñu ak teggiin ni jang khasida jang khas dafa am ay teggiin ni tudd yàlla amee teg yi ndax jàng xasida ci tudd yàlla la bokk kon lañuy ñuy sàkku ci kuy tudd yàlla dañ koy sàkku ci kuy jàng xasida bu ñu ko bëggee tënk dañu naan ki na ma jàng xasida bu ko mënee na ko sàkkal waxtu ak bërëb sàkkal waxtu wooy jàng xasida ak béréb boo koy jàngee mu bokk ci sa yitte yi ngay def ci bis bi waxtu wu jotee nga xam ne waxtu yi jàng xasida laa ci war a def nga dem ci barab bang koy ya, defé ya? waj waj tay wamu laaj sax tok ci barab ba def ko bam mu nga bañ caa boole na lu ca bokkut ci ay wax ak jëf soko ko nga defé ko noonu soko ko ba mëno ko nak ba nar ko ñaka jang nga fexé ba noko ko jangé te war maam nga def ko mo xam nga nak ci yoon di dox mbaa dangaa toog jotaay mbooloo da nga boole di jang ko waxtaan waye lepp rek bo naré ñaka jang mom defal fexé ba jang ñang mo xam dang ci samonté war may qasida nga fexe taxoo ko laab ñaari laab yépp laabu sobi ak toj xeeñ xet bu neex jublu qibla and ak dal magal li ngay jang ta di ko teewlu te jàpp ne yaa ngi di sa borom yaangi tewlu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ak xadrab shaykhul khadim radiyallahu taala anhu kon jangir wo itam sàmmanteeg moom bokk na ci li tax ñu man ci am na yeneen nag yoo xam ne jëmul ci biir njàng mi waaye dafa war a ànd ak moom ba tax mu sell te du jur ak yàq loola mooy kiy jàng xasi te bëgg cee jariñu bu mu gàddaay jàng alquran bu mu def alquran muy wujju xasaayit alquran ak xasaayit du ñu ay wujju doonu ay wujju yo xam na nga leen di wujjale jàpp ne da ngay faré ki di boddu kele wala nga japp ne faré ki ke kéemere la déedéet du non de duñu ay wujju ñom ñaar euh, alquran waxi yalla sunu borom subhanahu wa taala qasaid waxi jaamu yalla buy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon duñu ay wujju ba nga naan man alquran qasida la faral xam nga loolu pexem seytaane mu rëy rëy la te loolu sëriñ baa nga doon maytuloo taalibe yi mi ngi doon wax naan adim tilawatan li zal kitaabi ولو ثلاثة من الأحزاب في كل يوم دون هجران كما طلبة العلم له ذو انتماء وبعض من تصوفوا وزعموا بأن ما هم فيه منه أعظم وذلك الدليل zuurun wa kadib qad garrahum iblisu fiihi faqtarib nee na yow taalibe bi bis bu set na nga sax ci jàng dara ci alquran donte ñetti isib la bu dee boo dee ku bul gàddaay alquran ni ñaari kuréel bul bokk ci ñaari xeeti nit ñi lenn ci jàngkati xam-xam yi nga xam ne bu ñu jàng xam-xam dootuñ jàng alquran dañ yitte woo xam-xam ba duñ jàng alquran ak ñiy woote ak tasawuf ak daanukate yi daanu daanukate bay wax naan lañu nekk te muy seen yëfi sëriñ moo xam seen wëddu sëriñ la wala seen xasaayiti sëriñ la wala liggéey bi ñu koy liggéeyee la moom sëriñ ba moo gën a màgg jàng alquran nee na bu bokk ca ñay wax loole loole nee na wax wa lu am wax ju amut la nee na wax ju amut la joo ku ko wax wax nga lu amut ku jàpp ne am na lu gën a màgg alquran ci lu ñuy wax nee na kooku wax na lu amut ku jàpp ne li am na lu ñuy def lu gën a màgg jàng alxuraan it wax na lu amut te kooka iblis moo ko nax bëgg koo xañ tuyaabay jàng alxuraan kon tam kiy jàng xasida na ci boole na ci boole jàng alxuraan nañ njëkk a jàng alxuraan dogub alxuraan waqaf ak dogub xasida noonu la ko mag ñu baax ñi daan defe dañ jàng alxuraan ba àggal wëlbati jàng xasida waxoon nañ sànq ne ñaari tànk lañu sëriñ bi daan doxe alxuraan la jëloon def ko muy wérdam mu jël bind xasida def ko mu beneen tànkam ba muy doxe sëriñ bee la ëpp doole fuuf ëpp la kàttan gën laa gaaw bu mënta ñàkk a doxe ñaari tànk xam nga ne yow bu bëggee doxe benn tànk kon da ngay euh, kon dañ boole jàng alxuraan ak jàng xasaayit jàng xasaayit itam bu mu ñu tee def suñuy warigar yi ñu war ci njaboot ak ci diine ne yaa ngi jàng xasida yaa ngi ci jàng lu am solo lu rëy lu màgg ba tax na jëratul ngay julli jëratul ngay jaamu yàlla bu ñu ñëwee dee julli nga bokk sa xasida yow di ngunum ngunum yi nekk ca sàppe sa am na nga xam ne ne ci sàppe si ba noppi yor xasida gi man xamuloo lu muy jariñ balaa ak sax nga bañ a ñëw far ci sàppe si te toog far kon bañ a ñëw fi ñu jullee rek ndegam boo ñëwee di julli itam yow doo julli xasida gi ngay jàng faral toog jàng ko rek di ay wax yoo xam ne déggoo ko déggoo ko lu mel ni bu sëriñ bi naan defal nañ ma ci xasida yi loo xam ne fawqa salaatin qubilat wa sawmi ak yu demee noonu nga nga déggee ci ne kon jàng alquran ak jàng xasida moo gën a màgg julli moo gën a màgg woor kon ku koy def jërul nga julli jërul ngay woor nga xam ne loolu sa taayu lu bopp la Euh, loolu lépp it ñu bañ bañ ca fekk euh, bu mu ñu teyee jaamu yàlla nañu julli di woor di joxe asaka def lépp lu ñuy lislaam sant wëlbatiku nag jàngi xasida sëriñ bi bind xasida ci boppam moom dafa waxoon ne jaxaltu xidmatahu bi shahri naafilati baadal adaa'i lima aw jabtay allaahu ginnaaw bu ma defee samay farata samay julli sama samay wor ak samay azak ak samay yépp yi ma yalla sant muy ay farata ay jëm buma ca noppé lamay def ci sama di ca sako ngeureumul yalla ñu koy nawafilul khairat xayraat lola na def ko muy bind khasida def ko muy bind khasida kon mëno gëna a ëpp sëñ bi nak ba ab liggéeyam nga gën ko ko xam gën koo xam darajaam gën ko ko jox gëddaam loolu mënta nekk kon nañ ko booleeg di jaamu yàlla boole koo gi di liggéey doo jàng xasida ba àgg ci dootoo liggéey tëj sa liggéeyukaay dootoo liggéey la war sa njaboot dootoo ko defati doo dox bokk yooyu yëpp ngir ne dangaa ne ci xasida yi loolu yi nekkut lu dëppook ni ko sëñ bi santaane wala mu dëppoog ni mag ñu baax ñu fi jiitu woon daan dundee xasida li ñuy jeexale mooy jankatu khasida bi na moytu woro moy japp ne mom, rawna gañi khasida gamu yor wala lam cey jang àgg na ca fo xamne soxlaatul muy am kilifa soxlawul muy am kilifa mom boko ci mbal khasi kilifa yi mom talibe yi sampal yi ño war am ami waye am na ñoo xam ne yi sen serigne ñom nga xam ne dootoo am sëriñ doo joxe hadiya doo dem ci liggéey sëñ bi ah, loolu lépp ngir ne da jàpp ci xasida yi loolu itam ñàkk nara ñàkk nara ñàkk eh, kilifa nara bañ kilifteef rek ak bëgg a jubadi nañ yàlla baal eh, loolu lay tegtale waaye du du du du jub moom ndax loo mën a jàng ci xasida mag ñi àndoon ak sëriñ bi ak doomam yu tedd yi ñoo nu ko dàq te teewut ñu daan euh, def euh, teew ñu daan dégg am ay kilifa di ami sëriñ di joxe hadiye di liggéeyal sëriñ bi jàppe seen bopp kenn ci taalibe yi murid yi yu yamaay yi kon loolu lii daal bokk na ci li war a bàyyi xel euh, maa ngi tënk fii li ñu waroon wax jeexul waaye dañoo guddee tàmbali waxtu waxtu wi xat ñu ngi koy tënk fii di ñaan yàlla daal yàlla musal nu ci seytaane musal nu ci waru seytaane mi nga xamne ne buntum njariñ bu mu seen mbolo jëm fa mu jitu len fa parce que yene taxaw bu ñewé mu yakal len ko khasside yi seytaane xamna na ni mu amé solo xamna na gi ci nit ñi jog ak jëm gi ci jëm ak njariñ lam ne na a ak ëlëk mu fas galan ko nit ñi nak ba duñ ci jariñu tax mu xir len ci ay doxalin ak pas-pas ak i yo xamne ne buñ ca dëpput lor lañuy gëna jëgé ci eh, jariñu kon maa ngi jégglu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.